mais maître gis nañ ni bi da nga da da nga ci da ko défendre ak àll parce que tout ñu ngi suivre procès bi. nga mhm. énuméré quatre points yoo xamante ne nii booy liñ ko takkal ak li nga xamante ne noonu la affaire bi demee boobu. waaw police moo chargé woon dossier bi rek wante dossier bi dara nekku ci dégg ay nit ñu nobante la woon ñu dem fiiraange topp kenn ki mu jël portable am toj ko ñoom ñoo bokkoon lépp leneen liñ ci wax yëpp. dara du ci loo xam ne que lu tegu la dégg nga léegi nag euh, dañoo wane ne que dañ ko waroon toppee rek li mu def te li mu def yoon waru ko cee mën a jàpp looloo tax xam naa tribinal jël dossier bi yóbbu ko ba le sept fii ak semaine talaata prochain pour atte ko pour mën a xool ndax lañu ñu nekk yoon daf ko ci topp ñun dañoo wane ne que dañoo juum yoon munu munu jàpp jey naa ci kaw loolu kon loolu dafa di xam-xam boo xam ne ñoom foog ñu dem gëstuwaat ko xool ndax ñun ñoo wax dëgg ndax ànd nañ ñun wala ànd ñëw ñun bu loolu weesoo ma ciy profité am na nouvelle buy jàll mm-hmm. nouvelle bi du dëgg mm-hmm. ñu ngi naan dafa am covid moo tax mu dem pavillon spécial jëy naa dara jotu ko mu ngi ak jàmm ak salaam te yan na ko yàlla musal ci covid musal ci mbooleem jullit ak mbooleem njabootam lañ ko fa yóbbee moom moo di ko bu ñu jàppee nit ba nji xaar ñu atte la fukki fan ak ñeent yu njëkk yi dañ lay yóbbu pavillon spécial bu dee jigéen nga bu dee góor nga nag ñu yóbbu la Cap Manuel walla ñu wala ñu yóbbul ñu yóbbu la nan la tuddati euh, fële euh, Sébou Xutaan wala ñu yóbbu la Rëbës donc loolu organisation kii bi la kon buñ ko ñaanal Covid. rappelé yan na ko ci yàlla musal. comment. si rek la dox li